ci la ñu a bëree ñoom ñaar kii sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Siteu euh, sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Balla Diall ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Balla nuyu naa la. siyaar la nijaay di la jox sa wàcc di ñëpp di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp nag di baalu àq ñëpp nag. Hmm. di nuyu ñu ma àndal ku si nekk François Salañ ay hmm. Baye Zane ay Esprit di nuyu ñoom ñëpp. di nuyu sama maam bu baax di ko ñaanal yàlla jàmm yàlla baax ko sama kanam ba si kanamu kanam di nuyu nag ñuy bëgg Balla Dial yëpp ku si mel ni Abakara mm-hmm. ku si mel ni Papa ku si mel ni Zil ku si mel ni Am ñoom ñëpp di leen bëggee ndax dañuy baa seen yite ndax ma lépp di leen jox seen waaj waaj di leen wax seen doom Balla Dial nee na ngeen waajal borom la fin ma jàpp rek defeere mu waaw. bilaay walaay. Siteu naa la. nijaay la jox sa wàcc waay di nay ñu fekk ñëpp mala la sama waay yaay man la bala man aw ma tiitukaay loo ragal dalay gaañ dangaa baax rek xam nga di nuyu ñi ma fi àndal mag boo am ak ñi may yaakaar di ma topp man la sama waay xam nga di def si man parce que yàlla ay ñoom grand damloo ay ñoom yaa my life ay ñoom saasi ay ñoom ndaama man la waay ay ñoom Pablo ma la sama waay ay ñoom Pa Fall di nuyu sama yaay maam Marème sama papa père Alaaji Fall santaat sama ñaari waajur lu baree bari di nuyu jàmbaar ak Baay Faal ak fan si club Siteu forom maaren yëpp kay jàmbaar ak Baay Faal yi ak mbokk yi mboor mboor rek bool bool yi ma kenn di leen joxaat seen waajtaay bala li ma lay wax bariwul la vingt nga may combat bi nuyoo lañ la wax nank temba temba booy piano daa mel daa yàkkam di ma yëg see ci combat bi engrais kenn laaj la dërëm. Balla li mu laal kenn laaj la si làmb ji nuyoon lañ la wax booy ngay fërërëri di mel ni. ah la maa fi toog de. ngay tiit yow. dama li may li njëkkee sax mooy euh, isil bi. isil bi nga àndi loo lan moo waral loolu. maanaam bërëbu jaal bi lañ koy wax. Hmm. waaw ndax doomu gox la doomu dëkk la biscuiterie lañ dëkk. biscuiterie lañ dëkk. Hmm. di nuyu waa NGV ñaartali Grand Dakar waa Bentali ñëpp di leen nuyu mafia 37 fou bi surtout nag mafia foxos joxos bi lumbu sa ween marsa ba barki alxuraan dañoo sonn si man billaay wallaay. mais chaque jour dañuy gis benn vidéo boo mel ni ku doon def open press. di bàkku la la dikkee. maanaam open press bi dañoo maam moom ñoo waroon yaa ngi moom yéen a bëre. beneen mbapat moom ma waroon ko may revanche. far yàlla dogal lu muy dogal terrain am ndox mujjee wuñ ko bëre. kon loolu war a open press bi maanaam moo man maay baala Diallo xanaa doo gis yow bu bëree dafay neex su baaxoo dafay neex xam naa nit ñi mënaguñu xam loolu noonu li si kanam rawali bët. bàkku bi bàkku loolu nga bàkku woon. la laa baaxoo Balla Diallo dëkk na kii si kii mbaara mbaax kii génn ki njara ki jara ra dal ki si je ki jër ki ki daj kan ren daj kan ren ki daj kan ren ki daj ca ca ca ca ca ki jër jékki-jékki <laughs> waaye da ngaa dof waaye maa la gën dof su ma bëree dafay neex su ma waxee dafay neex booy lépp lañ mën si àdduna laa la wax. baala doo booy bu ndaw bi soo ko jëlu ren di nga ko jël demee si du ma ak yow. yow wanaa cës laa la wax. ma doon mbambu wanaa cës. te ko ma nuyu nag sama yaay. Uh-huh. di nuyu sama yaay yëpp ku si mel ne xarit saw ku si mel ne Badiane Diarra di ku si mel ne Mame Fandiaye nuyu sama maire ko njëm ndax dañoo sonn si man ku si mel ne daba. mais mais da nga waaj open press bi. terrain bi am ndox. combat bi am ndox combat bi ma def sama weccen nag ndax mbambulaa nag su ma jógee ñëppay jóg barki loolu yàlla moom ko defaral. Hmm. sant yàlla bu baax nag jaay ma sama bopp nag. xam nga mais dama si def sama wecceet bu bëri loolu noonu fàtte naa ko li sama kanam mooy ëpp. mun naa am lu ne si àdduna. Uh-huh. loolu dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw. incha allah sa combat yaa kii nga gis ko ni mu ko waajee woon. waaw est-ce que nekkul butéel yi safoon. neex fas la de kii dafa am ñaan. ñaanu waajur rek ko topp. ba damay topp ba ma may dee. moom moo am ñaan damay topp ba ma may dee déggoo xanaa. sama oban peres ñëw sama oban ñëw na fa ak biteelam ñëw toog sama oban peres man. waaw déggoo ma ñëw na fa ak biteelam toog ak i nitam daa yéemu moo wax nag muy def oban peres sama yeew mi lay luwee. yeew moomu du pour moom. yeew moomu ay mbir la quoi am naa yeew yeew moomu nag déggoo papa yeew mi ci boppam moo ñëw yem boobu doom la juru laam ji papaam laa bëggoon a di dangaru yeew moom li ngay woo ko da nga am ñaan yow yeew boobu noonu suñ la ko joxoon yow kese doo ko si da ñeme woo xam-xaamee ñeme woo dëj bi man da naan tekki tekki wala yoon bi boo nee rambax da ngay dégg paccax si doomu dëkk bi ala yaa bële lañ dëkk biscuiterie si digg ñaanga tang bi foofu gën a ñaan nuyu Modou nag jàmbaare day wax man Modou biscuiterie di ko nuyu bu baax mais li ma jaaxal yéen ñaar dafa mel ni da ngeen yàgg a toppante xaw ma nu mu demee. moo ma daan topp sama géwél la woon. ajal ma gën a jàpp sama géwélu juddu. dama am combat xam nga mu may way di ma tag ma koy baatare ban la sa waay jouru combat bi sax du ko fi fekk. amaana mooy loolu. soo bëggee dégg dëgg. Eh, may jooy soo bëggee dégg dëgg. soo bëggee dégg dëgg si do yoroo wéroo say nelaw doyul. <laughs> ma sama baatare da ngay teg jeexal ay xajalay gañ booy. booy munoo ma jaar fenn munoo ma nax booy. li topp sama ginnaaw moo bëri booy di nuyu abakara bu baax nag. jàmbaari jàmbaar ak noonu. di ko ziar di ko baalu ak bu baax abaa gara maa ngay nuyu Serigne Maguette ba say may di baawaan yow foo jaar yoon la loo def moo gën loo deful. kii ko daan ba ñeme la lan moo lool. bi may dëggu kay comme man benn bafet la am ba doo a ko teg bi may dëggu comme léeboon lu ponti man man la sa waay ma ne Balla nu mu demee nii. dama toog sama buntu gaale toog sama maam abaa bi ma ñëwee kilomètre bi dana ma yow yaay fogori sa combat ak Balla laa bëggoon a tëgg man ne ko yow boo ko bëggee rek du yàqoo si man man sama waay jaambaare bëgg jaambaar. soo ma jëloo la da nga maa ragal. ñun ay góor lan du ñu gën a gore. soo ko jëloo la da nga ay pisat ah. sa loxo lu ci nekk. non dara nekku ci mooy loolu. Ah, dara la. dara nekku ci. <laughs> kii déggoo ma suuru làmb ji. mais lan nga ko ñemee ba daan ko way mu lay may nga jékki-jékki ne ko kaañu bëri. maanaam way noonu kii dafa teg jeexal. maa koy sagal nii sax naan mu may baatare. kii yorul dërëm. <laughs> yorul dërëm dafa teg jeexal quoi xam nga teg jeexal maanaam kii ay xaj ak ay gañ xaj yoo xamante ne duñ lekk yàpp duñ naan meew pare fu moo koy gañ kii mu ne daf may daan ah, naar bi moo nu sonaloon te tàggoon na ak moom bàyyi ba léegi bàyyi woo ko yow dinaa la delluwaat si naar ba gañ naar bi ma xanaa ku la wax nii sama alal du ko lekk déggoo ñun ay muslim lañu dama bëgg nga déglu ma benn affaire dama bëgg nga wax ma benn affaire laa la dama bëgg nga déglu ma eh ah, waaw maay wax ak may toog yow waaw toogal dégg nga tooguma dama wax may toog damaa bëgg nga déglu ma laa la boo yaakaar ne làmb ji da nga jël pour milo mbaa wala lii nii yaa sa bopp. mais di nga bëre fukki at. te di nga bëre di nga xeex te boo bëree xeex ma xool bala sànq dama dégg nga ne dama laa jël duma ma entraîné damay toog xaw ma nan nga ko waxee la moo tax nga jël ko ba nangoo entraîné doo ci dem fenn. maanaam combat bi su sax damay yeb samay ah, supporter. amoo Balla joxuma cër. waaw jox la cër kay. ñaag maa jox mais maanaam combat bi soo déggee ma wax loolu noonu soo déggee ma wax loolu noonu Siteu mi wanaa Thiès. ba ngay jaaree gën ci lam nag. ko benn yoon nag xeebu ko benn yoon combat si dem fu ma fi war a dem. di ñaan yàlla nag yàlla yóbbu ñu si màggal gi ñu ñëpp ak jàmm ak salaam ñu ziar sëñ bi ñibbi si. ma dalal la Touba umul xuraa laa dëkkee. dégg ma ne la nga paas ñëw si ta ngaa xam nga dëggoo si taan booy ñu di waa hôtel vert man bamba ma ay baaba Cissé ay baaba Ndiaye ñëpp sama mais lan moo dugal ci làmb parce que tamit buñ bu mu leen gisee seen état de forme yi tamit nag lu lu ñu war a wax la lan moo ci làmb si yow kii euh, Ba Balla Diall. maanaam boo doxatul. maanaam Balla Diall boo nee lu ko dugal ci làmb rek ñëw. boo nee Balla Diall sax lu ko nga dégg ñëw. non damay laajte parce ñoo xam ne ci bari tamit. wax jooj dama la siy tontu. <laughs> waa te dama la lu neex. ndax mm-hmm. ma dugal si làmb go waa maanaam. waaw xam nga maanaam sama ginnaaw moo bëri. ndax man mbambu su ma jugee ñëppay jóg. gën a nekk mbambu fuuf. barki alxuraan mbambu laa nekk sama ginnaaw moo waa. man mbambu mag laa petit mbambu nga. ku si mel ne Abakara. ñoom mhm. ñëpp dañ may poussé. booy góorgóorlu mun nga am lu ne si àdduna te dëggit mun naa am lu ne si àdduna jaay ma sama boobu. boo bàyyee lii maa kii nii quoi. si da du maam moom sax kii du maam moom. mais lu nu dugal ci làmb. lu ma dugal si làmb. dégg million maanaam dégg million boobu noonu daw sama yaram. ma ne loolu million lu seeba daw sama yaram doomu aadama moo ma ñor ko bay su ko moo ma ñor man si aaduna quoi mais yaakaar naa ne ñun buñ jógee si làmb sax dañ see teexi ndax xam nañ fi tànk ñeme nañ jam jame ndax fu dul si làmb am na lu gën a metti làmb sa dañ boñ dañ koy def jógee ay jàmbaar jóg barki alxuraan bala xeebatuñu ginaar ci làmb sama koobaa bee Balla ni mu demee nga xam bii la ba bala yóbbu ma la fenn. damaa ñemee aju ma la nu ma ramas. sëñ nga maa xeeb yow ma géej man li ma yor dama koy jënd ko laa la wax. xeebatuma ginaar ci làmbaar bu ma jógee rek jàmbaari jóg fukki peete xeeb ma lay may bës yow ma lay may bës yow nga xeeb yow. Balla man maa la may da nga ma saraxu da nga ma da nga ma saraxu daa am lu gën a garaaw nag daa am lu gën a garaaw te xamu ko nag. muy loolu ndeysaan doole ji bëriwul quoi. Mhm. foo laamu ndeysaan xale bu ndaw la 2005 laa judd. 2005 judd 2005 laa judd le 20 novembre 2005 xale bu ndaw la maanaam doole ji bëriwul quoi. boo gisee da ngay neex a ñeme. yow ngay sayxoon waaye boo gisee si moom di nga xam lépp dëgg la. yow ngay sayxoon. yow doo ko wax. loolu noonu laa la wax doo ko wax. xale bu ndaw la boo duggee si moom li nga am lépp dëgg la si tànk bi boo ko jëlee noo def daanu. man gaynde la noo def da ngay laa la. jël naa ko sëriñ ma tànk la boo bëree ma xeex la boo xeexee ma duma la. barki ma jox ma doon mbambu booy. mbambu ma doon mbambu. jaguma jagu bala yoga ma. këlëm këlëm yaa taxasa minal jamila nakasa bayrota naari ne la la sita booy doo cës booy. du maag yow toogal bala du maag yow. yéen ñaar da ngeen mës a bëre mbapat. waaw waaw baal mbiiloo mbaaloo. ma la tànn si dara dafa leer mbiiloo mbaaloo. preuve yaa ngi fii. mbiiloo mbaaloo amul seedoo baaxul. mbiiloo mbaaloo mooy lu jaxasoo quoi. dafa jaxasoo. waaw dafa déw ba nii nag lu ne mu dugg yaay moo. ajal micro bi ñàkk man ñeme moo tax jaralu la dërëm booy. nga ne da ngay nga ne yow mbër nga ma jaxabal ma faaxal ko sama loxo nekk ci kaw xam nga ma nar ko dëb gaay daw dugg si géew bi si booteer yi mooy loolu kaay bërewaat mu daw. wax bu amul tees baaxul. ginnaaw abakara moo tëgg laa bi te ñoo bokk koñ mën la sa waay mbot laa la dóor xale boo jógee si ay tàngam jël mbot bi par force ku dul yow sax booy si da booy ma déggoo ma xanaa ku dul yow laa la wax nii ku la wax nii su duggee samay tànk day xaar ah, ku dul yow dara nee ko si waaye boo si duggee si xel ñu la gën a dis laay jàpp di naa ñoom si xel def ko fii raku mbër laa ceeb bi naaw naa sama mag te yow ngaaxa nga de déggoo ma xanaa rakku mbër rakku mbër baayu mbër ni yaayu mbër ñoom ñëpp sama yaram déggoo ma de xale bu nekk si yoon rek am gëm-gëm. mais léegi li ma am gëm ñeme fi nga ji. Balla dama la koo teg fen rek ngay dal Balla yàgg la sundeer la sama poulain nag. ngaa dof Balla yàgg la sundeer pare Balla. pare pare pare ma toppaat bi laa la wax. rakku mbër amul baay mbër amul am jom moo fi gën a am ñeme jam-jamee. Siteu doo xool yow. mënu teedukaay ay attaquant lañu. kon baal rek mbër baal baal sa attaque isa koñ isa gañ la gëmal sa bopp booy laa la wax booy. foog na séeréer maa gëmal sa bëm laa wax fa combat na lee fa idi fa idi njaay quoi eh, di nuyu sama mbokk séeréer. Siteu may ma ñëw. soo ma jëlul ren di ma jël demen du ma ak yow booy. waaw déglu ma. ñool ni jaay. yegg si la. moo koy combat bi boo ñëwee fekk fi temps rek. waaw waaw nañ ko teg ci temps quoi. léegi dama bëggoon xam combat bi naka la demee maa ngi dégg maa ngi dégg maa ngi dégg nga ne dafa ñëw jël sa tànk. nga mbot ko. mu jeex. waaw maam combat bi maam combat bi quoi maanaam Abakara moo ko tëgg di ko siyaar kooku du ma di ko gërëm di ko ñaanal yàlla jaay na bokkoñ de. maanaam ñoo bokk ko bu laamu di jeexee sama waa lay doon parce que alxuraan man sama xol moo rafet ko waa bu laamu jeexee moom ñu mu àndal yëpp sama waa la ñu ñu ko àndal ñu mu àndal sax. kii nii di ko supporter wala di ko ngemb ak yooyu noonu dañ ko bëgg xam naa loolu noonu mais xam nga duñ ko wane waale ko waa mais làmb ji bu jeexee dañuy ñëwaat la. rakam nag dama bëgg quoi Mama Ndiaye. combat ko waajee ñaar quoi su ma defee damay appi avant njaabu golo soo si tànk yi du feeñ rek mu léegi quoi guddi gi ma dem saal naan foto ndox tëdd ak sama ngor. day dem xapoo suuf si rek. ma xanaa. du feeñ rek léegi. du feeñ rek léegi quoi lay feeñ nag te dina gisu garaaw nag. xanaa da ngaa naan see kii baal la déggoo jour làmb ji laa ñi ànd ak ñoom jour mbapat bi laa ñi ànd ak ñoom sax dañoo yéemu si ko quoi man ba mu laa du ma la may dërëm. bala yaa neex bi day ñëw par force ndaama moo koy jox dama koy seexee rek dox sa gar ay puulaa ay waa ma doful doful mais ah. Siteu. daa mel ni yëpp nga. doo bandi doo malfaiteur daa mel ni yëpp nga de. non moom moo yëpp. kii day réglé rek. naas ku ko xam xam ko ci mooy loolu waxkat la quoi parce que aar la doon dund boo nga wooyee doxatul xam nga mu dégg million ci lam daw ñëw. fu ñu génn dafay neex suñu bëree dafay neex xam na ne sida dafa bari caaxaan lu ne na si suñu bëree dafay neex suñu baax kii dama ko ah. may dara la moo tax ma koy may dara da war a signé maa moom. ki damaa war a waaw yow ki dama war a cës ki dama yow booy dama nang rek noonu la combat baa ngi dugg ci combat bi nga xamante ne moo tax demee mi ak ki nga xamante ne mooy si tëb ngor mais nga gis nga gis booy naka ngay waajee parce que yow mii ni ma la gisee nii ku la xam ne nga ci ci a dugg si làmb nag man la sama waay ni ngay gisee nii yaa yaakaar mbër daa teg ba fees dell xam naa xamoo loolu ko waaw su meekul futeekul futeekul laa la wax ma ne nga futi bolok bi laa la wax futeekul laa la wax fuddil bolok bi laa wax ma ne nga sa bolok bi laa wax fuddil bolok bi fuddi ko fuddi ko doo ko futti doo ko futti futteekul futteekul wanaa cës kii dara nee ko fii wala jàppee rek am lépp dëgg la woy da ngaa dof ñaata séance ngay def instant nii maa ngi def benn séance xam nga mooy loolu làmb ji xam nga benn rek laay dóoragul nii ma jógee Touba deux trois séances yi ma woo bala suru combat bi man rek maay sekki maay indi doole déggoo ma maay indi supporter maay bàkku maay ambiance. ñi woo. maay jàpp maay duma maay daan. nga yaay ambiance. maay ambiance. yaay ambiance maay duma maay daan ambianceal ñu xool. déggoo ma de. ambianceal ñu xool booy. maay maay duma maay. ambianceal maay borom bëri maay borom. xanaa fi quoi. déggoo ma xanaa ambiance maay borom bu ko xëccoon casaan laa indi. ambiance maa am bëri maay borom. bëre ku ko mën di nga koy defe nga na caca gi gën caca gi sara gi jara gi gën caca gi zambax gi zambax gën gën gi gën caca gi jeg gi caca gi caca gi jeg gi jag gi jag gi jag gi jag jara nga dee we gi jar xurat ndaa teel may bëre may daan ñun mbamb lañ booy ragal nañu fu ñu jëm sax mbamb ndaw sax bu ñu waxee sax da naan dañoo bëri wax wala dara mais bu dugg si ñun doo ñu xam ki ngay xool na la laa bu bëggee sax mu ñëw toog fii. ki ngay xool na la la wax loo gërëm maa ngi la. waaw léegi toogal yow la laa dafa war a si dafa war a neex la la wala ngay ba war a neex booy waxal de nag bu mag bi. Siteu waaw nijaay Siteu. barki alxuraan kii daf ma ruux. billaay wallaay taalaay kii daf ma ruux daf ma tapet. kan xanaa yow barki alxuraan daf ma tapet kii gudul moom sax daf may daw. yow yow yow fa ma jaar yow fa may jaar danga fa jaar ci dunya danga ma tapé fa ma jaar danga fay jaar ci dunya la loo may waxee toogal dañoo war a signé dafa war a neex fa ma jaar danga fay jaar loolu lamb ji la la lamb la danga ma tiit laa la wax booy booy boo yeewoo da ngaa sa morso bi nga log bi ngay ñëw sa ñu ay mbambu lañ mbambu ndaw nga mbambu mag bi nga nekk te goma xanaa yow ay mbambu da nga lépp dëgg la pousse ni yow ay kan la jël bi morso bi la log loolu comprendre mais naka parce que nag sa premier combat arène ak ni nga yàggoon bëgg sama bakkan laa que ma jógee jàmbaari jóg doomu bawol bi doo ko jàpp fenn boor boor yi jóg déggoo bool bool yi jóg doo ko jàpp fenn di nuyu waa Touba nag di waa Refan fan sa club si da bu faramaare di nuyu Baye Fall yëpp barki maam Fallou di ñaan nag màggal ak gi ñu dem ko si jàmm ñëw ak jàmm xam man la sama waay mooy loolu ñun ay Baye Fall lañu ñun ay taalibe Cerno borom daaru lañu barki borom daaru ñun amuñu tiitukaay ay baay faa lañu. mais gannaaw combat bi leerul ngeen ko. waaw leerul waaw. kaay bëriwaat mu daw waajaat mu yàqu. maanaam dama jëloon te yaakaaru ci ndam moo tax mu dugg ci lu ne kilo karité ba nin <laughs> lu ne mu dugg ci. mais léegi maanaam nee ay kilo karité ay genn waa liibar ma la sama waay diwlin sax loolu yëpp génn ko si. maanaam nit da ñeme fi nga jëm. mais fee ma xanaa nit da ngay ñeme fi ko ñemewu dama nga toog. walaale lu booy sida xaw ma damaa diwoo de xaw ma nin. soo bëggee bëre te ñeme woo fere dama nga toog. ñun dañoo pare préparé booy li topp suñu ginnaaw dafa bëri dégg nga ma xanaa soo ma xeebee rek da ngaa ñi ànd ak yow dañoo tuum ñi ñuy nag waaye ko ñu booy di nuyu waa koñu may njaay golbe waa koñu xeer waa koñu bata mafia odu bu ndaw bi di la nuyu ñoom ñëpp di la eh, wax képp kuy fay si kër Balla Dial bi nag Grand Dakar maa ko moom Balla surtout mafia focus joxas bi lump sa we marsa ba dégradé say en xale yaa ngi noonu lu ne lañuy def si àdduna barki alxuraanu karim mais li ñuy def noonu dara baaxut mafia focus joxas la ma loolu laaj na lu muy teegi million laa leen war a koy man si da bu faramaaren déggoo ma xanaa loolu ak may laaj nu muy teegi soble bu ñorul bi nag ak ay faale Baay Faal ma la sama waay nuyu mafia foxas joxas lay teg soble baaxul eh, xëy na gémmeñ hmm, cam doo <laughs> oh, xool yow doo noowul eh ma la de booy ma jëloon rek danga maa ragal barki Seydina Muhammad si de du maa ngi yow ku ma si jëloon ah, laa ma jël doole damay pare pare pare surtout tekki ma loolu lu muy tekki waaw maanaam mafia foxas joxas bi ñoo ñooy lumbu sa ween marsa ba dégradé say en Lumbusa. sa wen. waaw Marsa Ba. dégradé say en. ñooy ay pédophile. dañuy dem laaj la lay teexi. maanaam Lumbusa benn Lumbusa wen. dafa am boo yoo xam ay fii sa papa lañ. Mhm. xam nga si xale jigéen lañuy jàpp zalone yaa ma gën a xam. bala yow loolu yaa ko baani la ñuy dund. baay la ànd si gédoo bi. ñuy dund te baani la ñuy daw. ñii Marsa Ba baay baay la baaw la. ñii Marsa Ba. waaw ñooñu ñooy garande <laughs> ñooy garande yi ay bolomeen lañ mooy lool yaa ma gën a xam moo tax mafia bi dafa dëgër Siteu ki nga dugg xamoo ko. kii fu mu bokk moom. kii fu mu bokk xamoo ko sax eh, ki li nga néew moo ko. daa paas ñëw ngaaxa la. ki ngaaxa la yàgg Grand Dakar moo ko booleeg nit ñi nii rek xam nga nit boo yàggee si ay nit xam nga dañ lay dimbali yokk la doole yaa ma gën a xam mooy loolu. bala man ci dëkk bi laa dëkk dëkk. fi leen juddoo fi sama maam bu baax. mais kii kii sa maam rek ndaw sant jaara njaay sama yaay bu baax mu ngi ñaata si dama ñëw làmb ja. ban tuus nga koy andi bu bees nga koy waajal wala lii nga fi nga koy ki dafaatal. maanaam tubaab bi dafa wax ndeysaan jànguñu sax mais xam naa li mu wax ko lu mu wax chaque jour en son temps. Mhm. waaw leneen luy ñëw rek am na leneen luy sekk leneen ak lu bees mooy indi non non soo tegee benn nit ñi dañ naan kii lii rek la mën xam nga. génn foo gën a bees taax su ma baaxoo dafay neex su ma bëree dafay neex. si Eh. te kii nag di sant bas cum nag di sant bas bas cum ku waa dama may xaalis bu bëri barki alxuraanu laa ko fekk may ma xaalis si da dangaa dof a ah, cosaan bi rek la ñuy indi. loolu la man te ñoo la ko jaaxal foofu bi. cosaan nga bëgg te ñoo la ko jaaxal man jigéen yooyu moom aar la doon dund sama géwél la woon. daan na ma rebatel yooyu ma ne ko baal ma nu ma lii bàyyi ma ak cosaan man ma jógee rek yal mi ni topp ma. xëy man sax bëre bi da ngay bàyyi ak man baaxu bi da ngay loo ma bàyyi la na séeréer maa si naan fa combat na fa bala jaal idi jaal sama mbokku séeréer yi di leen woo de waa Sawal Faajur. du ma la may dërëm déggoo ma de waa Bawol waa Touba waa Daara Jolof. sama mbokk xaritu pël combat bi seen combat la jox leen ma lap lapataaka yu baax rek. dégg nga ku si mel ne di nuyu waa koñu waala. di nuyu Insa Diaw non xaama ñëw ba rakk boo bu baax Insa mu ndaw yaa ma gën a xam rakk boo di ko ziar bu baax di ko wax ca kaw ca kanam doom nday Cheikh Bala borom koñu waala ala yaa bële di nuyu cuuj bu baax. di nuyu mafia bi yëpp mafia alay ñaar ba ay Philippe ku si mel ni ay booba yaa a gën a xam mooy loolu noonu ku si mel ni Ama Baldé Mor Mané borom ko ñu law be ama xaas bi si man. non ma si combat yi dugg léegi ci lambataaka bi mm. xeex bi. waaw wàllum xeex yaa ngi yaa ngi xeex est-ce que ku ma xam ku ma xam xam ne bagadeur laa ku ma xam xam ne xeexkat laa kii waa naa sama poulain sama la ah, standard rek bu taxaw nag moom xeex ak moom une minute mu waate ko double jàll lay woyow dama jàng boog su ba pare nekk ci école di taggan di jàng xeex ay mbër laa doon door ñuy nelaw bala sukuran ba nga ma jëlee bëre door dama la koy ñaan ngir yàlla bala taxal xeex ak man in minute bariwul. maanaam kii su tawee taxaw xeexam man day kii ma seeree la ba taake rek boo ko gëdee mu taxaw maa ngi ci kawam. kii laa su taxee ne day xeexam man dafa. du xeex ak man. dama la bëgg a xamal benn affaire man sama kanam lu ma si metti ay dóor ma koy yóbbee. du xeex ak man. weñ a gën a mel. bala xam na ne Siteu man. déggoo ma xanaa laa dugg mu ma góos. peel a gën a métti laa la wax a gën a métti te moo ma def sama jaal bi. déggoo ma de boo nee da ngay taxaw man double jaal ngay wéyoo ma koy yóbbee. man Baye Fall laa saaku ma bandi man Baye Fall saaku Baye Fall la kon yarul ñu bëgg la. daraay bandi neew ci man. Ah, noonu la demee Fall la gën man Baye Fall barki maam Bamba san booy Grand Dakar yëpp ma la ay ma fi yaabi danaa sa ba grand temps déggoo ma de may ma jël. waaw garaar baal fii du ma la may ñaar dërëm. boo sita nag na waajal. boo sita sama doomu ndey ndax ay mbabu la ñeneen di placé waaye ay wax nii ma la sama waay xam nga di jege na di napp ba rëy si biir ay wax mais xam nga nañu waajal. gannaaw combat ba ki ci daan soxna laan si dabu ngor ak ci lii. ñu boo yooyu jàmbaar laay wër. ndax boo yooyu noonu li ñuy def noonu dafa yomb ko waa xam nga ñoo si man la suma waay xam nga te wër la nga commencé wax yii nii nii xam indi ay wax yu loolu dërëm dañ ma mooy loolu xaw ma ñëw fii ba pare yow maa yow yow maa yow Barthélémy Dias Dias meeru Mermoz combat bi sa combat la bu baax di nuyu Madoune bu baax nag combat bi sa combat la ma la sa waay xam woo téléphone ne moo ngi lay seetaan kay bu sida xam nga dama woo téléphone naa ma Balla Dial félicitation yooyu noonu loolu daw sama yaram may naa la loolu noonu li may félicité noonu daw sama yaram pare préparé nag boo ma jëlul rat rek danga maa ragal lu leer daa booy Laurent Ndiago booy boobu di ko xëpp galaaj xaw ma nu mu tudd. booy boobu noonu di ko xëpp galaaj nee na ma lay tox du maam moom. parce que alxuraanu karim ma boo yooyu noonu yëpp dawuñ sama yaram. di nuyu waa jaama gan bu wér nag. c' est bu mag ñoom Abou Ndiasse ñoom Lamine jamono. ñoom Seck maanaam boo yooyu noonu. may ko boo yooyu nu ñuy xaamam ñëw. jéem a dund laa wax ñu dañ koy dund ba pare. lu ñuy jéem a dund seen ala yaa boole ay jàmm yooyu noonu ay banlieue daw suñ yaram NCB lañ dëkk Biscuiterie ñaar tali benn tali. dara bu NCB laa baala. baala benn tali nga dëkk. dëggoo ñaar tali man ñaar tali laa dëkk baala. baala bul muuroo sama gox bi man ñaar laa dëkk benn tali nga bëgg. ñaar tali li ma fa am am nga ko. déggoo ma de man benn tali la ma fa am ko fa. déggoo ma xanaa ñaar tali sa koñ man benn tali la am amoo ko fa. ñu ngi ngi jeex kàddu yu mujj. kàddu yu di nuyu xam nga ñëpp ñi ma jàppale man la suñu waay xam nga. kenn jàppale wala. di nuyu Cheikh Diallo bu baax gaan sal la ma fayal di nuyu ndaama bu baax. Pablo grand dame. my life saasi. feeñu si yow. déggoo ma de. kenn du ñëw Madun Prési ñaatali bentali Grand Dakar Biscuiterie. kenn du ñëw. bàyyiwuma kenn. kenn waa jaama gën waa géeja waay waa gannaay combat bi seen combat la wakaam lébuy combat bi seen combat la doomu tëgg laa doomu gox laa addunaa si biir géew bi kooku noonu du nee nga may bës ki ngay xool sa ginnaaw laa ma ma may ñëw àndaluma ma ànd su may xaraju du ma ànd nit damay dem jëli ko bala maala la gën a nekk jàmbaar foofu may moom daa mel promoteur bi woon nuyu naa la yaa ngi en direct de delloo siyaar bu baax a baax ñu ngi lay fay nijaay di la jox sa waaj waay di Mm-hmm. ak ñëpp ñi si suivre Wassare TV mm-hmm. euh, mais mais xale yi seen coow li ñu mbéyee ñoom ñaar bëri nañu daan naa ko daanuma ko ñu waajaat combat bi yàqu nga andi leen lan moo waral nga andi leen dugg leen ci bés bi. ñu ko waaw xam nga ñoom tey seen lamb dafa dépassé bëri ci ay koñ. Mm-hmm. waaw. ku ne a ginnaaw dépassé la bëri ci ay koñ ak ay mbéb. moo tax ñu jël leen indi leen fas yéene naa indi. ma doon dem rek mais dama xajuma fii. parce que Baba Dia Baba Dial bu jógee tey ñi koy topp bëri na Siteu bu jógee ñi koy topp bëri na. ko. te mu ñaari mbir yoo xam ne ay mbiru coow la ñu. ba tey tey seen war naa am na war naa am na dépassé toog ci bëri ñu ay mbapat parce que ñoom seen niveau dépassé na loolu. Mm-hmm. parce que leen tudd ci ful la. Mm-hmm. te ñun tamit doon nekk ci làmb di liggéey si làmb saa gisee ay phénomène nekk si làmb danañ def tuubu indi leen si làmb. Mm-hmm. bu bo moo tax ñu boole ci bés bu mag bés le novembre bés bu mag la ci làmb parce que Siteu bu Ngor bu départ bés bi départ loolu rek na làmb. grand combat ah, nga loolu day bu bés bés bu boo jëlee ñaari xale yi boo leen si na am na doyoo lam bu leen lam war a ñoom la ñuy waxtaane. Hmm. parce que tey ku ne def na say preuve ci làmb. dëgg la. tey ñu leen di wax ne ñoom ñu leen di gën a ñaaxal ñu gën a jàpp. dëgër ñu gën a indi seen taxawaay ci bés bu le parce que tey la mu war na a mën xam parce que tey seen i morom ñoo fi ne mhm. muy ñoom tey peut être mënoo nekk ay i moom ñoo fi ne tu lamb kenn am booy am pour dem mhm. parce que li ci ne du lu ndaw mën ngaa déparé ci lu ndaw kenn booy ëpp la doole ngay dem ba feegu ay millions parce que booy xool ñoom seen taay demewul noonu mais seen i morom ne mhm. ñoom nag ñooy am gëm-gëm bi ak bëgg-bëgg te xam naa ne bëgg-bëgg bi am nañ gëm te ñoom ñaar ñëpp dañuy mobiliser te tey ñoom boo boo toog ak ñoom ci plateau bi nga xam ne ñii nii askan wi bëgg nañ leen Sénégal yi bëgg nañ leen. Mm-hmm. waaw ñu nguur tamit di nit koo xam ne nekk ñaari tali di sama waaye di jàpp di jàpp ci petit production bi bokkee bi woo ma ne ma ñaari mbir yi ay champion seen combat xëjutul ci koñ yi indil man ko Iba Mar Diop ma jël loolu indi ko Iba Mar tudde ko prési mm-hmm. prési tamit doomu Grand Dakar muy drapeau boo xam ñoom war nañ teg ñoom ñaar ñëpp parce que ñoom dama bëgg tamit ñu def ay open press def parce que combat bi du combat bu ndaw. Mhm. papa yow mi day spécial la wala. no ci biir combat la ñuy bëri xam naa ne tey ku ci mel ni Taro Mbaye sama xarit. Mhm. monsieur ma ni de ma ni de deuxième bu yeboo nga waaj lool bu baax. li <laughs> ma teel yow après premier combat man di yab sama supporter. waaw eh. ma mhm. la mu ñu parce que bu mag la ci la wala rek na la baala muñal waaw baax na. kontaan nañ ci bu baax a baax. fay nan tey <laughs> naa. waaw baax na incha allah. millions yi nga dégg si laam li laam laaj dee ko def. déggoo li mën a xanaa kàddu yu mujj yi. kàddu yu mujj yi. ki borom jaarem waaw loolu moom dëgg la mala sa waaj ñun moom xajatu ni mala sa waaj ci ay teen rek ay koñ moom. kàddu yu mujj yi lala. bala teen rek. mooy loolu di nuyuwaat xam nga ñi ma fi àndal grand sa mag boo. rak boo instant jaaw maa lay nuyu bu baax xam nga di nayu jàmbaar yi ñoom live ñoom Madoune ñoom Ndaama. Mm-hmm. ñoom Pablo ñoom Grand Lo ñoom Martin ñoom Ado man la sum waay di nayu jàmbaar yëpp bilaaxi waaw ku déggu sa tur tamit na ma jéega rek. Mm-hmm. man la sum waay. mën nga jàpp turu ñëpp. ay science quoi. man ma jàpp turu ñëpp baala ah, mooy loolu man li ma topp xam mooy loolu. waaw di ñaanal yàlla Siteu yàlla bàyyi ko ba jour làmb ji ma mhm. jàpp rek defee rek di ko ñaanal yàlla jàmm si yaramam lépp. di la ko ñaanal benn tolof tolof. di la ko mhm. ñaanal na ko yàlla def yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def. ba jour làmb ji ñu wane suñu bopp yaa ma gën a xam. maanaam xam naa am am na nu muy demee sax ñu ne wax ji bëri na su fekkee na xam ma jëf jee ëpp sax mais xadar bee xaw a bëri quoi. ñoo la nag foofu. di sant nag sama àndandoo yëpp. Mhm. ku si mel ni François Salañ ku si mel ni Baye ku si mel ni Yaama Ndiaye sama yaay ku ci mel ni Esprit ku ci mel ni Sefal sëñ Mbacke yëpp mafia bi ay Baba Cissé xam ku ci mel ni Amet ku ci mel ni Pape ku ci mel ni Papa borom dëru loo dawalu lu ne baaxul te nuyu ndaama borom dëru yi tamit di siyaar ñëpp di wax mafia bi yëpp noo rëy nii dëru di leen siyaar ñoom ñëpp di nuy Maodo Yade di nuyu waa Bentali nag di nuyu Alas Mbappé ak seen waa koñ ak sama maade yi nekk foofu yëpp danoo def mobilisation bu rafet. combat bi Adama ma gërëm. ay séance. xanaa waxoon léegi ñu ngi mënoo jàpp tuuri ngay wax nii di ratatari boo dama ma gërëm man maay wax. ñu war a gërëm laa xam nii yow gërëm nga ba pare dama ma gërëm. Ah, demal léegi. lala. voilà demal nga di nuyu waa Bentali nag. ma fi yaa 37 fou bi. di nuyu Rawul sama doom yaay ku si mel ni Assane Mbappé. Mhm. di ko bégee bu baax a baax ku si mel ni Alaaji Mbaay borom caaro yi la jàpp si combat bi di la wax alaaj mbaay yaay borom caaro yi ñëwal nga jàpp si combat bi maa ngi lay xaar ku si mel ni Bassirou. Eh, ñoom maam Maane Thiam Géejawaay ay eh, ñoom buusita sama doomu nday combat seen combat la eh, ñoom dogo dama bëgg xam nga. ñooñu dañu seex kóolare ñun ay buusita bu amee open press damay dem bàqu fa. ñi nga àndal laa dañ la war mooy loolu wala ngay fukki pej ak ñaari danu ma ràññee di nuyu Moussa Dia nag tonton di ko nuyu bu baax di leen wax nag waaj leen bu baax a baax mafia bi na dëgër dama leen war a fay ay millions barki alquran ku si di nuyu waa raay ba nag ñoom jaaba gën a ñoom Malick Fall